dikkati naa wure wa dem na këng waxi mag dem na ndaa daali faw jëla am critique yéen kaay ne ma njuumay kay faw ñu yeewu ngay wax vox populi naan kon VSD bu nara a métti ci benn bokk yaakaar wala ndax Sall moom lu mu guddi guddi xuus jaar rek candidat bi moom président Macky Sall mënta génn week-end bii te waxu ko wal fu ko di Quotidien naan kon fippoo ngi xeeñ xunn ci benn bokk yaakaar ndax gaa yi fi mu ne Sall la ñuy xaar mu joxoñ ña ca des daal di fippu turbine yéen kaay naan leen kaay leen maa mën maa ëpp doole maa leen di wax nag Sall nga ngaari lam tooro bur gede bu tabbee ba nuppi la xale ya naan bu suba ca ngoon sàll ngaari subaa ca ngoon su waxee ba nuppi ma ni la ku fippu yet wa dal sa kaw yéeni kaayub dee média bi naan man sàll ngaari tabb na te dana wax kamu tabb moom président Macky Sall day dana ko fësal kan mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ak APR moom président Macky Sall dana ko wax waaye nag mëqta ni muut lay doon boole li la neex ak la naqari daal di wanaasu lu ko mooy nag président Macky Sall dal sa kaw tur bi naan man xam nga Sall daf leen xamal ndax waa benn patron yii daf ci bari ci ñoom ñoo xam ne dañoo def mar day taali ñoo xam ne ñoo raw si ket mbaw ndax sikk turbine naan man président Macky Sall yore seen paani jëf jox leen kopp muñ nag naan leen noppi rek ku ma mënti tabbit ma ne la muñ lu ko mooy làmbaay ñaaw fa yallaaxu gaaya fas yéene nag encaissé ne muut yéene kaay bi naan maan ñoo yey de ndax nag dañoo traîné ay casserole xam nga président Macky Sall tabam gii képp ko ci àndul ma ni la boo waxee yet wala naan téel dal sa kaw rawatina gaay yi nga xam ne nag seen loxo taxee ci fond force Covid 19 bi xam nga ñoo ñu moom noppi rek Walf Quotidien naan kon monte fi poo ngi xeeñ de Tribune yéen a naan kon bal du tàkk sagar du xeeñ ma ni la noppi la ñuy def ndax président ki sàll ci boppam artul na leen dogal gi daal moom sàll fu mu ko jëlee ku ca àndulit patt ngay def l'observateur naan candidat président ki Sall day daanaka am na ñu ko sàmbalee xam daal dafa mel ni ndax nag sàll ni ki démb am na ñu mu dajeel ci waa APR fas yéene nag ne teel wax ji dibeer gii Tribune naan lu ci mënti am week wi moom Sall moom dana leen leen mbaamu mbaa mu firi leen fa yàllaahu vox populi naan kon en tout cas dibeer gii moom Sall nag war na daje ñenn ñoo xam ne dana leen déy mbir mi ndax nag am na ci ñoo xam ni moom président Macky Sall bëggul bàyyi ba wax jot mu taxaw naan leen lii ak lii ci dogal laa jël waxtu woowu la tee mooy yéene kaay naan man réewum Sénégal de ak fi mbir i toll mi ngi mel ni teeñ mu nekk ci naqu boroom ci biir mbooloo mënoo seppi sànni mënoo wokk te mënoo rey gaa yaa ngi wax waxi croissance waaye ndeke yoo tension politique bi daal yóbbu na Sénégal ardo ma ne la benn poñ ci croissance bi daal dinay tàbbi géej fa yàllaahu yéene kaay bi naan man dañu ne woon 5 virgule 3 lay doon Sénégal nag FMI naan ñi ngi ci 4 virgule 1 pour cent l'info naan kon tension politique gi moonu jural deltu ginnaaw goo xam ni mar taali laas naan kon terewul day FMI ma ngay sargal Sénégal ba mar day taali réew mi naan kon moo ne day Sénégal benn oomam mi ngi ci suuf de réew mi dem na ardo fa yàllaahu le point yéene kaay naan ko déet Sénégal kay li mu am ci recette fiscale ak i financement tax na ba ministère bu finance ñu daal di koy rayal ko Sénégal teg nga nga ko ci raay wi ñi ngi am as Sénégal soo xam ne bitim réew day ma nga fay tàkk ndax nag la nga xam ne moo UEMOA ci boppam daal dina koy tegaloon yenn réew yi nekk fii ci déndu Afrique sow jant Sénégal daanaka jege na ko deux minutes pour lire l'essentiel naan la Sénégal jege mooy fal jigéen ci boppug réew mi ndax nag daanu ko laal ba ni ko nii turbine yéen a kaay naan kon déet Sénégal kay li ñu war a wax moom moo di ndaw yi seen place ci réew mi lan la xam nga ndaw yi nag ñi ngi sargalee réew mi fu ne xale la tout tànk ma nga yëkkati Sénégal ci Arabie Saoudite concours tari alxuraan nga fa nekkoon Mohamed da ko ne ñëpp tey andi ci réew mi yéen kaayub dee média bi naan maan waaye Sénégal dañoo ñàkk confiance ci seenum réew xamatuñu fu nu jëm ndawum réew mi ñi ngi tëntëñal amul njaaxle ci seenu ëllëg ci réew moo xam ne amuñu lenn luñ leen wan loo xam ne mën mënees na fee amus yaakaar xale yi nag di daw tasaaroo ci géej gi di faatu ci anam woo xam ne maar day bi naan maan ndawum réew mi ñoo wolootul réew mi ba tax na ñi ngi dugg ci tooxi doona yoo xam ni maar yi taali tooxi doon na bari ci réew mi yéen kaay bi naan man màggalug Tuuba ne ñu ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci nit yoo xam ne def nañu njombe police teg na leen loxo ca Tiwaawoon pël nag askan wa daal di daw ci maire ba Papis Diop ndax nee ñu lu toll ci ñeen fukk ak ñaar ci ay hectares moom la sempi ci ay filaawo lan la naral suuf see askan wa en tout cas ña ngi koy joxoñ baaraamuk tuuma ka ñuy joxoñ baaraamuk tuuma lanket yéen kaay naan man moom moo di Guinée Guinée nag ñaari at bi xam ne Mamadi Doumbouya jot na ca réew ma askan wa doon manifester pour Mamadou defi élection nañ fa faat faf ñaar ñu doyal sëkk ñi nga xam ne ñoo daaneel nguur ga di sàkkooti Alpha Condé sax faf ñëw ndax nag constitution amatul Guinée daanaka liberté ci boppam sax amatul Guinée l'observateur naan maan tëñ-tëñal ga am ca Touba moom la Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma ne na nag xam nga téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xam ne moo desoon ci investissement Touba gee moom mi yor communication ca Magal naan buñ ko defoon ca Touba Touba ko ak mbënd fi mu ne amuñu ndox lu dul ndoxum taw te Touba waroon dépasser fii ndax dayoo doom tribune yéen kaay naan maan ay étude rek ay étude ati ay étude wane nan ni Sénégal gaanuwaay yi nekk ci l'école yeeg l'hôpital yi ñoo gën a salte libération yéen kaay naan maan ñaari jëf yu salte ngi nii am na ñetti mag ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay dañ leen jàpp ndax seen rakkub étudiant la ñu fekk mu daal di faatu ñu ne dafa xaru moo ne tey ba ñu xoolee seen néeg ya ña ngi fa fekk genn paaka goo xam ne takk na deret ca néeg ba nag gis nañ fa ay takk-takk deret yoo xam ne dañ ko doon jéem a fomp ñetti frère yépp man la yóbbu nañ ngir enquête